dal leen ak jàmm ci région de Kédougou fi nga xamante ne foofu la ñu ñëw ngir rek mën a nemmeeku ay activités yi nga xamante ne euh, société bii di Noga Mine moom moo ko daal di aman ana lan la ñu mën a jàpp ci activité boobu le ñu dem teewlu ay euh, réaction yi nga xamante ne taataan nañu ko ci ay intervenant yi ci commune bu Tomboronkoto digganteem ak gu fukk kilomètre ak juróom moo leen xaajale foofu nag la ñu amale cérémonie bi nga xamante ne ci lañ doon jébbal ay ambulance wala sax ay fourniture askan wi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox bi cérémonie bi nga xamante ne autorité ñu nekk ci région bu gu ñëw nañu teewee ndaje bi ni mel. ce n'est pas la fin du monde ñu réussir tey année prochaine bu ñu góorgóorlooy mën nañ réussir waat ñu réussirul tamit bu ñu góorgóorlooy année mën nañ gën a réussir. parce te sultan eh, mine bu ndaw la amul usine eh, c'est mécanisé lay def sultan def ñu ñëw woon eh, ndekete société minière mun nañu respecter seen kàddu société minière mun nañ def de sorte que population bi am mbéte yëg seen bopp ci li ñu nekk di def aussi li sultan di def ci dëkk bi li muy liggéey lépp mu ngi koy saytu moo tax aussi boobaa aussi kii toog fii di leen représenter monsieur le maire ngeen gërëm ko sant ko aussi parce que mi ngi def liggéeyam mooy représenter population bi di xool di saytu ci ndaje biile ministère bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum mine fii ci Sénégal moom it ki ko représenté moom mooy directeur de l'exploitation minière ki di abu Sow. Et monsieur Sultan Diop, directeur de l'entreprise Nogamine, conscient que les ressources appartiennent au peuple, conformément à l'article 25 de notre Constitution, il a décidé d'assumer pleinement sa responsabilité sociétale. Kédougou nekk benn ci région yi fii ci Sénégal mi nga xamante ne daanaka am na ay yu minières yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi ci gox bi jamono ji mu ngi am yaakaar sokkeeku gannaaw ba ñu gisee ni am na société bi nga xamante ne samp nañu ko fii te muy wuyu Nogamin mi nga xamante ne taxaw na tem ngir jàppale askan wi ci gox bi lii lañ leen indi woon ci activité société bi di Noga Mine euh, fii ci région bu kedugu di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy suivre ci Leral TV leeral point net ak leeral FM.